bàyyi ne wa min xasadin jaaru alayya baay na ci soxot rek ñiy jeng ci man soxot ci lañ jéngee ci suma kaw waaye wa inna nii naka man mu bërisu aqraani raw naa samay maas awaana sibaa yi fekk maa ngi ndaw bàyyi ne ku ma bañal soxal rek tax waaye ba may ndaw laa raw samay maas waaw ndax kuy wax ne waqat tëmma ay inda mahdi fetxu góor yàlla yu bëri yi ngay fonk topp leen seen dund da ngi fu ne lañ fi jaar fu ne lañ jaar waaye bàyyi moom nee na waqat tëmma mat na fetxi sama ubbee ci yàlla sama xam yàlla sama wilaaya mat na fekk maa ngi ci bertu maa ngi ci laytaay maa ngi ci lay taay fekk góori xay yépp nekk ci sama ron atte te boobu maa ngi lu ndaw dégg nga benn bandam mu ne ba muy mu ne ba may ndaw dañ doon toog di werante ñuy werante ñee ndax feeg asamaan si géej ak fi ma ne bu fi géej nekkoon ma gis atama fatxiya inda mahdi wa qad anat jamiu rijaali alxaybi taxta qadaayi moo tax mu ne ñi ma bañal ñépp noonee rek la indi taayaru may gëri mi nga xam ne dafa bind téere Ibrahima Ñas Kawlaxi di weddi Baay di weddi Cheikh Ahmed Tidiane ba mu demee ba indi téere Baay Sirul Akbar di commenté téere bi dafa wax ne laqad barhana Cheikh Ibrahim xaqan bi annahu sayidul aarifina fi asrihi mu ne dëgg-dëgg Cheikh Ibrahim indi na ay argument yu wér ne mooy sangi aarifin yi ci jamono te mu loolu nag borom xam-xam yi jamono anteeg yëpp nangul nañ ko léegi lii kii weddi moo ko kon weddi bi lu ko waral sayyidul aarifina looy boo koy weddi looy wax moo tax bàyyi ne waqad alima al aqwaamu anni mubarrizun wa min maradin jaaru alayya wa axladu wa anna ubaali wa rasulu mujaawiri ida sadda arbaabu nufuusi wa axfadu wa inni abdullahi atlu kitaabahu wa janba rasulillahi dahri uqarridu bàyyi ne gaaña xam nañ gaaña gaañ ñëpp fu ñu ne gaaña seen gaañ yi lañ ci jublu ñi am grand place bu ne gaañ ñëw nañ waa grand place bi lañ ci jublu ñuy jàngalee grammaire ci arab bu ne gaaña wax nañ nu xaatu yi lañ ci jublu góor yàlla yi bu ne gaañe góor yàlla yi lañ ci jublu bàyyi bàyyi ne gaañe moom xam nañ xad alimal aqwaamu anni mubarazun kon ku xamul bokkoo ci gaañe li muy wax nee na gaañi xam nañ ko koo xamul bokkoo ci gaañ wa min xasadin jaaru alayya wa axladu ñii may tatal ci sama kaw di ma wéet yépp kañaan rek la waaye fan laay ragalee man ku may noonu te man maag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo dëkk boo xamee ne nit ñi topp seen bakkan moo leen fekk walis topp ma wala mer moo leen ko defloo lan laay faalee loolu te man ma nekk ak yonent bi sallallahu alayhi mu teg ci nag wax ju rëy jooju yépp ki ko wax seetal buy melal boppam lan lay wax wa inni abdullahi man mii wax lii nag jaama bi yàlla rek la naka laay ragale te man yonent mooy suma dëkkandoo naka laay ragalee ñooñu te man may jaama bi yàlla jaama bi yàlla dëgg-dëgg ku ci àgg am nga am nga damaan bu garaaw ndax dangay dégg ñu ne ah diw de am na problème bu rëy ñu ne waaye xarit diw la xarit diw la kon diw dana ko rek parce que fekkee bor la am mënu koo fay te xarit diw la te bor mën naa diw mën naa fay bor waaye diw jaamu yàlla la jaamab yàlla jaamab mbindeef ñépp moom lañ waaye jaamab topp ñépp duwuñ ko góor yàlla yi dem nañ ba tuñ tuddee jaamu yàlla lu may xam tur yàlla yu gën a màgg moom la ñuy tuddee Abdullahi bàyyi ne naka laay ragalee te man jaamab yàlla laa laay ragalee te maay jaam may jàng téere bi yàlla bi nag naka laay ragalee te man jaama bi yàlla la naka laay ragalee te téere bi yàlla bi laay jàng muy alquran naka laay ragalee wajan ba rasulillahi dahri uqarrizu naka laay ragalee te man waxtu wu nekk yonentu bi laay tagg kon kat ñun ñu dajee di tagg yonent bi mën nañoo am kóolu tey ci ñu doon ragale waaye nañ koy teewlu <coughs> bàyyi na sama fatxu mat na te fekk maa ngi ci ndaw toll na fu ñu koy tunqoomee muy wax ak góor yàlla yi wax yoo xam ne nettali na ay jotaayam ak baayam ak abdullahi wuldul xaaj muy wax wax yoo xam ne mën naa mënuñoo wax yëpp abdoulaye wul xaaj di laaj baayam baay di tontu ba abdoulaye wul xaaj daf koo tunxoom wax ma walaa ji abdoulaye ci baay wax joo xam ne baay bi ko nettali ne duma ko wax léegi woykat ba waxoon ne boo demee kër alaaj abdoulaye ndaw moo gis ku lay nuyu ibra ku lay nuyu ibra rek na ko nuyu ndax mu ne mu mel da nga ko laaj ibra mooy kan mu ne mooy ki nga xam ne mooy too ñi ziare si baayam yëpp parce que ñi ñi ñëw ci baayam yëpp ku nekk ñi la niru ñoo lay ziare si ñu baax ñu ñu baax ñu ànd ma ne bàyyi ne ñi dagg àll yi penku xarf defuñ ko lu may ngir xeeñ ci suma xet loo ci mën a dégg dégg ko loo ci mënta dégg nga ñaan yàlla mu déggal la ko wa ma qataaw fi sharqi wal garbi fatfadan ila makkata illa li chammi shadaai bàyyi ne ñi dagg àll yi penku xarf di dem màkk sax defuñ ko lu may suma xet lañ bëgg xeeñ xetam xet yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wax na ne wa man yataallaq bil amini mahabbatan yenal kulla ma yahwa bi chami ariji bàyyi nee na képp ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga jot lépp loo bëgg ci xeeñtu man sama xet xetam waarisu muhammad yi la nga xam ne àgg na ci tey bi wax ko ne ko loo wéyale mu wéy bàyyi ne wa ahlu zamani kulluhum faada raqiyan sama ñooñ jamono yépp texe nañ lu may ku bañ sama yoon wi te yoon wi kenn du ko bañ lu may ku texee di yoon ab jàng alquran ku koy bañ may ku texee di yoon yi salaatu ala nabi koy bañ lu may ku texee di yoon yi laa ilaha illa allah ku koy bañ lu may ku texee di yoon yi tabe di ngir yàlla ku koy bañ lu may ku texee di yoon yi bëgg jaamu yàlla yépp ngir yàlla kan moo koy bañ